jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jaajëfal nañ leen mbokku internet yu 5M TV Sénégal amati mbégte ak bànneex di ak yéen di leen dégtal xibaar yi. la ca gën fës kon juróom-ñaar fukk ak ñetti candidat ñoo rekk fës ci élection yu nag falum njiitum réew file ci Sénégal jëwlin bi ñu dénk wàllu karange bi réew mi kon ci juma ji daal dinay rek jot lu jëm nag ci wàllu kandidaa yooyu nga xam ni kon fësal nañu seen bopp ci jongante falum njiitum réew caatum 2024. 2024 ak mandataires yi lée mu mel ni kon ndaje boobee ginnaaw gi kon lañu rek fësal lu jëm ci wàllu parrainage boobee ba tax na bépp candidat rek bu bokk ci élection yi lée kon war nañ ko mën a parrainer te loolee day bokk nag ci ab liste bu yaatu boo xam ni war nañ ko nag mën a fësal jëm rek ci président ak conseil départementaux yi ba ci maire yi lée lu jëm tamit ci liste parrainage boobee kon ñu ni war nañu rek am lu ëpp 0,6 pour cent wala rek lu ko daal di yées 0,8 pour cent ca noonee kon électeurs yi nga xam ne ñoo yore fichier électoral yi nga xam ne ñoo gën a fës wala ñoo gën a màgg ñoom nag war nañ leen gën a représenté bu baax baax ci anam bu takku jëm ci wàllu électeurs yooyee ñu ni kon loole sax tax na kon parrainage bi dinañ ko def ci juróom-ñaari nag gox ci juróom-ñaari gox file ci Sénégal ginnaaw googee kon lu toll ci ñeent fukk nag sax yoo xam ni dinañ leen daal di tasaare ngir nag xool nan lañ koy amalee ginnaaw mbir moomee jëm ci wàllu parrainage bi jëm itam ca foofe ca pencum ndaw réew ma ab liste itam dinañ ko fa daal di amal lu toll ci huit pour cent ci ay député ñoom itam ca pencum ndaw réew ma dinañu rek daal di wuy ji luñu nu mel mu yemoog rek fukk ak ñetti député yoo xam ni dinañu bind kon ci bile liste ba tey ci wàllu parrainage boobee kon ni nga xam ne rek moom mooy liste bi ñuy tëral jëm ci conseil départementaux yi ak maire yi ba ci rek ensemble bu territoire national bi lee loolee kon ñu ni ci xayma dina toll ci téeméer ak ñaar fukk élu